monsieur Sayuru Sène ñu ngi lay nuyu secrétaire général SAEMS le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire ñu gis ne nguur gi def na proposition pour de l'école le 2 juin lan nga ci mën dire wax waaw euh, wax que euh, la décision bi nga xam moy décision de l'école ak décision de école mu ngi de l'autorité de l'État le président de la République Nous naa que nous na lu taxoon ñu loolu nag bu dee yaakaar naa woon ni na mën na tax ñu ubbi école yi waaye bu dee loolu taxoon ñu tëj école yi mu ngi fi ni continuer jonn bu ñuy ubbi école yi il faut ñu wax ñu ci yan condition lañ koy ubbi je dois rappeler pour rester positif que première date bu ñu retenir oon c'était au mois d'avril le 6 avril mais le 6 avril bi ñu ci yeggee gis nañ ni kenn mënul ubbi école yi ñu jàppaat beneen dat le 4 mai le 4 mai aussi buñ ci a gis nañ ni kenn mënul écolés. école ñu ngi le 2 juin d'ici le 2 juin beaucoup de choses peuvent se passer peuvent se passer ñuy le 2 juin Bobu, le président de la république a été confirmé par les autorités habilitées les autorités sanitaires pour une reprise des enseignements apprentissages nous pose poser problèmes. problème On nak situation bi dafa une situation comme li ñuy dund avec une multiplication de cas positifs une multiplication de cas communautaires ça va être très difficile qu'on reprenne les deux parce que la vérité est que si nous école à partir du mois de mars mais de nous attention nous retourner au niveau de leur localité d'origine donc bu ñu retourner au niveau de leur localité d'origine mais li werte wóor mooy bu dañu reprendre le 2, il faut que kat yoyu defaat un mouvement vers leur lieu de travail té lolu encore une fois de plus dina en tout cas dina laaj beaucoup de mesures yo xamné il faut que état bi jël ko pour que la reprise puisse être effective à partir du 2 juin. gis nañ ni nguur gi amna volonté lool pour tijjiwaat école yi waye ku gis suñu classe yi ni mu mel ak ni muy fessé gi ci aju yépp naka ngeen fexé préparer rentrée scolaire boobu waat. gis nga lu ñuy ñaan yàlla suñu borom mooy que balaa ñuy yegg le 2 virus bi jóge fi wala boog mu wàññeeku bu baax a baax a baax comme nu mu nekkee ci yenn réew yi dañuy gis ni Côte d'Ivoire ñoom jël nañ décision pour reprendre les cours à partir d'aujourd'hui mais le président Côte d'Ivoire wax na depuis le 26 eu un nouveau cas mais nous avons rek je crois 59 cas avec 7 cas communautaires donc yoyu moy suñu inquiétude Sénégal nous dañu nek ci réew mo xamné ne no waxé surtout rawati surtout rawatina kat yi ñun mom dañoo wéx dunq boo waxé ñu né déet dañoo bëggul dem jàngale alors que njàngale moy suñu liguey moy suñu gagne-pain té situation bi bu mu amé mais kat yu bari rawatina ñi nga xamné dañu yore ay élèves classe d'examen ñom ñoo jël sen responsabilité créer ay groupe WhatsApp pour mën di jox cours seeni élèves kon lolu suñu préoccupation la mais nag dañ koy wax mu leer dañoo bëgg nguuru Sénégal mesurer bu baax a baax tous les risques qu'il y a si la situation d'aujourd'hui est égale à la situation du 2 juin parce que bu boobaa dina laaj mesure yu bëri xam nga la distanciation sociale dans la classe Nous ne dañuy de les classes pour que les élèves respectent la distanciation sociale mais c'est mon problème Les élèves doivent nga maîtriser ces classes. Ils leen maîtriser bu ñu une classe bi Faut nous rassembler parce que c'est des retrouvailles d'enfants ensuite pour ñu jóge seeni kër ñëw l'école en général ils viennent en groupe ceux-ci viennent des parcelles d'autres de Guédiawaye d'autres etc., pour prendre la région de Dakar donc il y def di ay question yu ensuite Nous, naa la jàngalekat yi les mu Ni nii des dañuy jóge Thiès dellu Tamba ñii jóge Diourbel dellu Ziguinchor etc. c'est tout un mouvement national qui va se faire alors que les transports sont suspendus entre régions ou entre départements donc c'est un ensemble un de mesures que l'État état bi mën a jël wante qui liñ doon nangu je crois que a le droit wax que nous en tant qu'acteurs de l'école nous avons le droit propagation virus bi joggé ci école yi dem ci famille yi wala mu joggé ci famille yi ñëw ci école yi loolu dé mom wax dëgg bëgguñu ko parce que gis nañ nak l'état japonais bu mu jëlee mesure bu mel nii dafa dem ba ci digg bi mu wat ginnaaw loolu faut pas que ñu def ñu def ko li xamné nak yalla moko indi ñepp teg ci seen gët niñ ciy démé nañ ciy bolé yalla ngëm yalla je comprends parfaitement un état qui a investi plus de 500 milliards pour une année scolaire qui peut considérer par endroit que buñu ñu won à une année blanche c'est une perte je peux comprendre ça mais le yëpp mbiru yàlla la nañ ko jàppe te rester positif li mën a nekk rek nañ fexe mu nekk bu forcer lenn bu forger lenn voilà ñu gis ne tamit euh, sax bi souvent ministère de l' éducation am na ay dates yu ñu jot a proposé pour examen baccalauréat bi BFEM bi CFE bi ak entrée en sixième bi ci weer yi ñuy dëgmal muy août ak juillet ndax gis nga ne loolu mën na nekk fi ñu toll. même loolu xam nga lu may niroo li tubaab di naan mettre les charrues avant les bœufs gis nga balaa ñuy wax waxu examen parce que examen mooy nat évaluation xanaa balaa ngay natt nga am li nga natt. amna ay weer euh, mois de mars avril mai wa buñ ko jangul dal di engager examen juillet kon ça veut dire que weer yoy ñu jangul dal amul solo dama yaakar ni quand même bala ñuy dem ci examen nañ régler d'abord les conditions de la reprise pour que xalé yi non seulement nous renforcer lu ñu jotone jang mais ñu dolli ko bu ñu paree ci lolu nak ci lañuy ñuy daal di xool nag yan date la mën a évaluer def examen certificatif ci lu ma jàpp mais bu dee nag dans cette situation daal engager des examens alors que defuñu cours il y a un problème c'est pourquoi encore une fois de plus euh, ministère de l'éducation dama koy wax aussi c'est important ci décision yu bëri def ñuy woo mais ci yi mujjee nii woo nañu mais pour informer ñu pas pour presque recueillir nos, avis, parce que lui, il a bien précisé que ce n'est pas lui qui ferme, ce n'est pas lui qui ouvre, c'est le chef de l'État. kon ñun kay information lañ ci am des informations. examen évaluation la balaa ngay évaluer kay day nous avons def lu bëri te y a li gën urgent moi un démarrage des cours li plus urgent c'est les renforcements pédagogiques buñ ci ñu xool loolu ñu nous a jàngale nag naka la ñuy def ba mu mën a examen en tout cas loolu laa jàpp. monsieur Sène ban message ngay lancer ce ministère de tutelle. je renouvelle notre solidarité en tant que SAEMSIens à notre ministère de tutelle mais nous l'invitons à être très serein dans la situation et de demander à notre supérieur à nous tous quelle est l'autorité du chef de l'État de se rappeler que les questions de santé publique demeurent une surpriorité pour toutes les nations. Ces questions-là méritent un encadrement très sérieux. On ne pourrait pas prendre un ministère comme celui de l'éducation comme virus def ak dem rek li def parce que nous yalla def ñu laaj ñu fagu fagaru kon nous, ñukoy que bu situation le 2 juin amélioré na parce que lolu lañuy ñaan yalla suñu borom amul benn problème ñu reprendre enseignement yi xol nak naka lañuy programmer les examens mais nous avons yalla bu ñu le 2 fekk ni situation bi mu ngi ne cotte de jonn nañu fexé wax ni la surpriorité c'est le combat contre le Covid-19 la surpriorité c'est l'anéantissement de ce virus lenen mënul nek tant que defuñu ko ñu habité avec le virus nañu xol nak lañ koy essayer mais pas avec des enfants risque beaucoup ngelawaay buñ ko jël pour le Sénégal voilà mais maa leen di merci beaucoup